Ah, problème mu Ousmane Sonko ah coow li bari na ñi naan nañ ko jàpp ñi naan duñ ko jàpp ah li bari loola lan nga ci gis Tata Sène. waaw mon frère euh, maa ngi koy ñaanal jàmm ak xiiwal di la ñaanal yéen bi yal na ko suñu borom teggi te li naqari yal na neex. Mm-hmm. parce que li ma ko contré woon mooy la mu dem suite boote ba aji saar di ko tuumaal. Mm-hmm. mais ginnaaw alhamdulilahi rabil alamin ah jéggal naa la. de ma part personnelle di ñaan ñëpp ku la mere woon mu jéggal la yal yàlla jàppale la ndax ku dem ba ci saaliw xalifa Cheikh Saliou Mbacké di ko yónnee xar nañ ko seetaat magu sëñ Moustapha Saliou bi nga xam ne mooy nekk ci xilaafa gi Cheikh bu Cheikh Saliou Mbacké yónnee ko xar ah ñun dañ koy sant yàlla ñun ñun mur dañ koy sant yàlla waaw kooku du dox ci lu ñàkk fayda du wax ci lu ñàkk fayda Mbàkke Balla sa sëñ Moustapha Saliou moom dem naa ba ca moom waaye sëñ Cheikh Saliou suma koo gis waaye Mbàkke Balla di la gërëm ci li nga defal Ousmane Sonko di la ci sant di kontaan di ñaanal yàlla usmaan Sonko yàlla teggi la lii yëpp ci darajay laa ilaha illallah muhammadu rasulullah loolu rek Sonko laa la mere woon lu ñu wax ma aalu Ousmane Sonko lii mais baal naa la euh, ginnaaw sunu borom seetal na la ba ñu la dix ans euh, dëggaluñu viol bi na nangam nangam alhamdulillahi rabbil la yàlla taxaw yàlla jàppale la barakati laa ilaha illallah dem prison ñi ne dem lan nga gis ci loolu ci loolu ah, ah, xam nga prison lan nga gis ci xam nga prison bi mu waroon dugg dafa tëj pardon mhm. lu ko tëj xam nga Selbé day gis ban prison ba mu fi gis naa Ousmane Sonko ba mu fi gis naa Ousmane Sonko euh, muy dugg ci palais bi waaye buntu ba dafa tëj mhm. mu am lu mu gàdd ci loxo ndeyjoor bi mhm. waaye duggul duggul duggul balaa moo gëm ne Ousmane Sonko dinañ ko tëj ma gis ko sama bët. mais liñ ko def ni jàppaloo ne prison la tamit. waaw waaw mais mais lii nii ah. lii nii mi ngi gis ay soxnaam baax na. Hmm. ah baax na lii du dara lii du dara mi ngi gis ay soxnaam baarakallahu ah gis na. ñu mhm. ko koy mhm. baax na mais jàpp ko yóbbu prison gëwuma ko de. gëwuma ko de. ok. Euh, maanaam bu fekkonte ne bunte dafa ubbeeku. ba ma hmm. gisee mu taxaw ci ginnaaw pale ba buntu bu féete nii. Hmm. su fekkonte ne ubbeeku nañu wax mais après mbégte lay mujjee ci kàttanu yàlla. macha allah amiin xam nga euh, <laughs> bu ma nee Ousmane Sonko na ñëw ci man nit ñi mën nañ koy yaakaaree dara ndax euh, wéef ya mu doon jox nit ñi man sama tur nekku ca. parce que toujours man damay xaar yàlla waaye am naa yaakaar ci yàlla ci wéew yi non non non <laughs> man yooyu yooyu nekkuma ci man du ma dóor du ma utul ma daray kenn taaliba sëñ Tuuba laa moo tax yàlla boole maag sëñ Moustapha si mu yónnee ma xar mhm. yónnee ma njëgu soble waali sek yónne ay ndawam ñu indi na ba sama buntu kër xaar macha mhm, allah waaw loolu da ciy am Mm-hmm. waaye Ousmane Sonko na xelam dal. Mm-hmm. te xam ne li métti woon jeex na. Mm-hmm. am nañ ci yaakaar ci yàlla. toujours dama koy wax ne ko na dal rek. na dal man lool laa koy wax bu dalee rek incha allahu rabbi sunu borom mën na ko defal jàmm. ndax euh, tey jii Ousmane Sonko bu nekkee président. xëy na sel bi mën na ca am dara ndax 2009 laa ne Macky Sall te sera le quatrième président mu jàpp samay loxo ba tey Macky Sall mayu ma kër mayu ma oto. aw ma passeport diplomatique am ay seytaane yoo xam ne kenn ku ci nekk day dem selbe lii la lii la te ñoom xamaluñ ma dara xamuñu sama pooj dara bañ ko ma may moo tax match ya may woo élage Hadj mu am ko ko wax ba mu woo ma naan ma eh, tiyema se maanaam ah, dafa am yoo xam ne dañoo soxor waaye ñooñu yoo ma xiyam laa leen di xaare rek man mii maa leen jig ba penc bés penc balaa leen di xaar duma leen ko baal. ka mu yónnee baal fii rek bés penc na doy waar billaahi laa am wallahi wa tallaahi daraje Seydina Muhammadin du ma leen baal ci sunu kanamu borom rek ndax ñooñu bu ñu mënoon yëg ci yàlla bu ñu sañoon duñ ma defal dara ndax ñoom defaluñ ma dara te ku ma bëgg a defal dara ñu taxaw ci ñoom waaye nag mënu leen tànk yi amu leen ay laaf yëg te yàlla wa ngeen am martaba wax xam moom da ngeen xamul ki ki ngeen def. jéem ngeen ba sonn mun mënaluñ ma dara. ok euh, ñu gis ni tamit euh, le président Macky Sall comme ni nga ko waxee yaa ko tudd léegi euh, waxoon nga ne dina nekk quatrième président ñu gis ni nee na suba la war a wax dimanche bi incha allahu rabbi ba xam dafay bokk troisième day def troisième candidature am wala day bokk wala du bokk lan lan lan nga ci gis. sa mm-hmm. daa mel na nga yëkkati sa café naan de <laughs> mooy mooy sama dose. dégg loolu. <laughs> waaw séeréer laa naanu ma sa sànq. Mhm. café. café Touba ngay naan naanu ma attaaya. Mhm. tuxuma mhm. kay bàyyi ma jël sama dose maa mhm. sax dose la xam nga mhm. séeréer laa ceddo laa waroon a doon waaye sama baay euh, doon murit ne moom du gis ashhadu an laa ilaha cosaan moom wax dëgg yàlla cosaanu séeréer ay ceddo la woon tabaarakallaahu sant yàlla ceddo gi mooy wax lu ñu benn sell moo fi def balaa dara di am xoolal 2009 Macky Sall di wër fenn fu ne mu taxaw ma gis ko ne ko yaa doon président mu téye sama ñaari loxo yi xulli ba di boobu gëmuma gëmul woon li may wax. Mhm. waroon naa maa maa mën a woo. Mhm. xam naa nag balaa fi benn président di toog. Mhm. faaw mu ñëw tàgguma rek ndax maanaam. barakallah maa ngi sant yàlla. foog mu ñëw ba ci yow président war a toog foog mu ñëw ba ci yow. ah waaw waaw te bi yoon dañuy waxante lu wóor. ah ni ma ñàkk ci président ki mu def fukki at ak nangam aw ma ci moom dara aw ma ci moom kër aw ma ci moom dara. Mm. aw ma passeport diplomatique. njëbbul mm-hmm. sama ñaari doom yi fenn. Mm-hmm. ah dootuma ko nanguwaat. waaw. Mm-hmm. su ma xamoon ne Ousmane Sonko da ciy topp damay dem wëri Ousmane Sonko ba gis ko ne ko ne ko yaa ci topp. boo toppee naa doon conseillère. Mm-hmm. léegi manda damay kii de bàyyi naa est yooyu de bàyyi naa léegi daal dañ lay jox poste daal. waaw poste kay conseiller dong laa bëgg a. nga gis euh, Macky dafay euh, présenter. waaw day euh, présenter troisième manda am nañ ci yaakaar ci yàlla ndax moom mu ngi ci xol bi. ah. bien sûr mi ci xool bi xam man toogu maa makki Sall. Mm-hmm. boobu ba tey recevoir ma 2009 laa ko gën a tëg bët ci jumaa laa yéen recevoir Tata Selbé nag ah. ah! <laughs> na na toog rek ba wàllam jeex mu dem maa ngi xaar keneen xëy na keneen kii ñëw dina ma gënal Macky Sall. mais daal day présenté. waaw euh, bañu ma ko mais parce que def na def def na ci réew mi lu rëy liggéey na tali defal nañu stade. Mhm. amal nañ juróomi ko mhm. pétrole bi tubaarikàlla sant naa ko ci. ndax bu ma defalul tamit mu ngi defar Sénégal. ok ça va. loolu taxul ma mere ko te du ma ko mere. xëy na sama wërsëg moo nekkul ci moom. macha allah ah, mais am naa yaakaar ne. Mhm. du bàyyi de. Hmm? bëgg na troisième mandat. mais yaakaaroon ne loolu bu amee dëkk bi dina dina dëkk bi dëkk bi du def dara. xam hmm. nga xam nga yàlla dafa rëdd ba pare. Hmm. te yàlla dafa am ay ndawam. xam nga ñu ngi xeet selbe. waaye nañu seet ab seetkat bu fiy wax lu set selbe selbe waxul. lu fi waxul neexul benn man dong lañ doon bind ci journal yi. l'observateur génne selbe. bu bëggaan ba xaw ma nu mu tudd.